la ñu war sotti ci gafaka ki war a nekk chef de l' opposition bi di réew mi quotidien nee na en tout cas sala jamono ji ki jiite parti réew mi di Idrissa Seck nee na mooy chef de l' opposition yéen kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu Idrissa Seck nee na mooy chef de l' waaye dafa mel ni opposition bu Sénégal bi jamono ji xëjoowuñu ak Idrissa Seck moom Idrissa Seck moom mooy chef de l' opposition Ousmane Sonko njiitul Pastef moom di piccoo ak na loolu te nag du fi nekk di xiiroo ak di ŋaayoo nee na ku ko soxla na jël lépp amul lum ciy wax te soxlawu ko moom Ousmane Sonko daal di ci yokk ne fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire la ñu fay wax ak lañu ñu fay nettali nee na ñu xar yëpp ñooy génn ci mbedd mi di furti furti waaye xar mu nekk xam na njëgam ku wéet xam kan moo la man Ousmane Sonko nee na dil yi ak combine yi ci ginnaaw askanu Sénégal loole dafa jeex ci réew mi yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Sonko mu dugg ci oto tàllal loxoom xale yu bëri daal di koy topp yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na sa sigi cor la woon maanaam nemmeeku tuur la fa Ousmane Sonko doon amal waaye mbooloo mu bari ñoo ko daal di topp am ñoo xam ne dañu ko doon wax esama yi am ñu koy wax Ousmane Sonko mu sell mi am ñu koy wax naan ko yaa nekk sunu xol la Ousmane Sonko ci biir journal bi nee na ku dul yàlla sunu borom jàlla jalalahu subhaanahu wa taala rek moo ma mën a arrêté amul mbindeef moo xam ne mën na maa arrêté mu yàlla sàkk loole kenn mënu ko maanaam nag nañ si tey te def ndànk te dalal seen xol yéen kaay gi du l'observateur xëy wax ci ëllëgu coalition Benno Bokk Yaakaar sans Macky Sall maanaam bu ci Macky Sall Benno Bokk Yaakaar di tekki ak lan la Benno Bokk Yaakaar di jara journal bi nee na bu dee Macky Sall nekkul candidat 2024 Bokk Yaakaar dina jafe lool lool lool dina jafe lool Benno Bokk Yaakaar daa am candidat boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ciy ànd moom dina jafe lool 2024 yéen i kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Bassirou Thiaw Laye mi nga xam ne mooy doomu xalif généralu Laye nii jamono ji mer na ba mara bi nee na li ko waral nag mooy xam ngeen yi nga xam ne moo amoon diggante ndaw ñi dëkk Cambérène ak ne ñooy takk der yi journal bi nee na dafa am ay grenade lacrymogène yoo xam ne moo duggoon ci xabru Seydina Issa Rouhou Laye loolee moo tax taaliba yi nga xam ne ñoo dëkk Cambérène mer ba maara di tale yàgga interpellé ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ngir nag ñu daal di siy jóg waxa moom sëriñ bii di Basiru Thiaw Laye nee na jamono ji mënatuma ko ña ndax sama téléphone bi sonné suba ngoon guddeeg ba ca kar kar kar kar taalibe yi di ma woo ngir na ma yëkkate sama kàddu loolee moo tax jamono ji ñun nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni mooy grenade lacrymogène yi nga xam ne sànni nañu ko ci xabru Seydina Issa Rouhou Laye waaye nag ñi xam ne ñooy takk der ñoom la ñu jox xar bi baaraamu tuuma journal bi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naa ñu en tout cas li am ba de xam ne ñooy waa Laayeen jamono ji mer nañu ba maara détaali yéen kaay gi de la point xëy dañu xibaar ñu Idrissa Seck ginnaaw bi mu génnee ci coalition Benno Bokk Yaakaar député bii xam ne mooy Mariétou Dieng nekkoon ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar nee na non inscrit ci assemblée nationale dina daal mareetu jëng mi yéen kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar jamono ji 82 député rek la ñu desee yéen kaay gi de La Témoin nee na Idrissa Seck fexe na ba Macky Sall ñàkk majorité ci assemblée nationale yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar neexul ba neexul waaye nag ci assemblée nationale benn bokk yaakaar ma ngi ci danger yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na Macky ci boppam jamono ji moom la ñu ci miir bi Macky Sall la ñu sës ci miir bi yéen yaakaar naan ñu Idrissa Seck ci boppam ah, moo jël revanche sam Idrissa Seck ci boppam moo jël revanche sam ci Macky Sall yéen gi di bés bi xëy dañu xibaar naan ñu Benno Bokk Yaakaar par la force dinañu négocier ca assemblée nationale yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy xibaar naan ñu semga bu yees bi di Mbaye Cissé daan nañu koy installé wax na nag li nga xam ne moom la fas yéene def ci biir arme bi journal bi di Rewmi Quotidien nee na médecin colonel Fatou Falla moom la ñu tabbu directrice hôpital principal moo nekk nag jigéen bu njëkk boo xam ne daan nañu koy takkal dal grade général yéen kaay gi da la Soleil xëy di ko dëggal bi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu journaliste Moustapha Diop bu Walfadjri convoqué nañ ko suba ci alxames ji ci commissariat central journal bi nee na li tax ñu convoqué ko nag dañu ko convoqué ngir mu nekk témoin ci lu jëm ci mbiri Pam Ndiaye yéen kaay gi di réew mi ko dajee nee na journaliste Babacar Touré bu moom tim tey ji daan nañu koy convoqué ca DIC division des investigations criminelles affectation yi nga xam ne jamono jii nag daan nañu koy nemmee ko journal bi nee na procureur adjoint de Dakar di Amary Faye daan nañu koy yóbbu Tamba waaye nag affectation boobee tax na mën a la gis nga laaj yaa ngi mel ni tulleeg male consultation à domicile jamono ci moo am te nag bi ñu amalee conseil supérieur de la magistrature yàggul ñaari weer rek ci ginnaaw yéen kaay gi de la Quotidien nee na du affectation boobu rek moo jaaxal gaaye ndax juge bii di Maxa Bari moom tim daan nañu koy affecté fi nga xam ne mooy tribunal du travail lan moo ko waral journal bi nee na njort mooy dafa lànkoon ba tëdd sa naaj woo bañ a daal di benn waaye yéen a kaay gi di libération ñu xibaar naan ñu ci lu jëm ci wàllum décret certificat de nationalité sénégalaise yi am na de benn waay bu tudd Moustapha Ali Ibrahim koo xam ne ab syrien la mën la Syrie la dëkk te gis nga am na li nga xam ne mooy carte d'identité nationale bu Sénégal depuis 2018 am na tamit certificat de nationalité sénégalaise décret du 13 février 2017 te nag décret boobee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 seen revue de